waaw tey nag euh, dañ fee dajale ay mouvement ak ay association ay groupement de femmes ngir li nga xamante ne bii fan yi yëpp daanaka mooy lëmbe réew mi fii nga xam ne moom lañ nekk muy diwaan Kaolack gi di ko lëmbe muy élection locale yi le président Macky Sall nag am lu am solo loo xam da ko def fii ci diwaan bi muy Kaolack gi nga xam ne moom lañ nekk tànn ki nga xam ne mooy euh, le président Mouhamed Ndiaye Rahma daf ko tête de liste la coalition benn bokk yaakaar ci commune bi ci lañ xam ne décision président Macky Sall boobee képp koo xamante ne bii ndaw nga bokk ci coalition bi da ko rafetlu te it dañ ci ko nangoo ngir rek jàppale googu nga xam ne bugg nañ ko jàppale ñun dañ fee daje woon tey taxawal benn mouvement bu tudd ADR ànd doole Rahma mouvement boobee tey jii lay soog a juddu tey mooy premier jour bi nga xam ne moom lañ koy lancé eh, fii nga xamante ne bii mooy Tamangoy lañ def lancement bi ànd ci ak ay jeunes. and ci ak ay groupement de femmes ak kep ko xamanteni bi rek manam mbiru politique la ñor na la it nga ñoo ba président Mohamed Rahma am victoire inshallah allah rabbi ci élection locale li tax nak ñu tànn ko ndax dama def rek ben rappel historique un tout petit peu amna na yu bari yu jall ci ginnaw ñu def ko coordinateur départemental beno Boko yakar mu def ci liggéey bu am solo gagner election gagner tiko au delà de ça ñu gi aussi aspect social bi. li nga xamante ne bii ñoom moom lay dimbalee waa Kaolack sans compter ndax képp koo xamante ne bii këru diine nga képp koo xamante ne bii tey jii da ngay yëngatu nekk fii ci Kaolack gis nga jàppale Mouhamed Ndiaye Rahma egsi na ci yow kon loolee gis nag mu am taxawaay bu am solo te it amul benn ndomba tànk du ministre du directeur du dara jël ci wàllu liggéey boppam di ci dimbali askan wi dimbal goo xam ne nit sax boo xamante ne bii gisut war dana xam ne Mouhamed Ndiaye Rahma am na liggéey bu am solo boo xam ne def na ko ci wàllu Kaolack ci wàllu politique bi waaye it ci wàllu social bi nga xam ne mi ngi koy def saa toogee ak moom buñ la nee kii mooy raxma sax da naan déedéet moom ci oyofam ak it ci mën a jëflante ak nit xam nga politique moo demee nii ndax tubaab bi ñoo naan kii choisit supprime te boo gisee ñooñu di def loolee dañ leen di owaat au calme te xam ne lii lépp ñoo ko bokk ndax amoon na fi ay jamono ñëpp nekk fi ñu tànn leen ñu ànd ak moom kon tey bu ñu tànnee Mouhamed Ndiaye ma dañ leen oo au calme te xam ne comprendre nañ leen ndax président yaakaar naa ne élan bi mu lancé nañu ñëpp doon benn ñun duñ seen sànni xeer kenn duñ saaga kenn duñ xalab kenn ndax li nga xamante ne bi ñoom lañ mënoon def bañ tegal leen fi muy bilan te bilan boobu yaakaar naa ne wane nañ ko wali mën naa am aussi wane wuñ ko parce que ñun gisaguñ ko waaye daal wax dëgg fa yàlla duñ ci oote xuloo duñ ci oote xeex duñ ci oote xasante duñ ci tont kenn ñu ngi leen di ñaan ñoom ñoo ñëwee lépp loo xamante ne bii jàppoon nañ ko ci seen mer nañ ko bàyyi te ñëw ànd te xam ne Mouhamed Ndiaye Rakhma moom lañ ci commune bi waaye bëgg-bëgg bii bëgg-bëgg président Macky Sall te moo gën a fort ñoom seen i bëgg-bëgg ko leen nañ ko bàyyi xel bu baax te xam ne choix bi c'est un choix boo xam ne unanime la malgré nag choix moom boo ko defee dana am ñoo xam danañ contesté waaye ñooñu di contesté danañ liggéey ba nga xamante ne bii ñoom it contestation boobu danañ ko bàyyi ñëw ànd ak ñun liggéey booy xool décision yëpp décision président Macky Sall la ndax moom moom la ñu suivre fépp foo xamante ne bi joxoñ na ko ci benn bokk yaakaar bi fii ci Kaolack ñun loolee la ñuy suivre te démb yaakaar naa ne Kabatooki bi euh, euh, Pape Demba bi tey wootee président Mouhamed Ndiaye Rahma dem na fa kon képp koo xamante bi dangay jàppale Mouhamed Ndiaye rek jàppale Pape Demba Bitèye la jàppale kon ñaari choix yooyu dañ koy confirmer di leen ci encourager nar leen ci accompagner ni tey dañ def benn lancement lancement nag boo ko déggee mooy yëgal nit ñi rek ne lii xew na waaye au fur et à ñuy dem danañ def beneen liggéey boo xam ne boobu aspect technique lay doon ndax boo xoolee dana laaj une ouverture instant bi ni mënaguñoo tàmbali di lim ndax bala ngaa lim faa mu dox quelque temps mu mën a chiffrer donc au fur dañ def benn ouverture boo xam ne képp koo xamante ne bii groupement de femmes nga nekk Kaolack danañ fexe nga ñëw rejoindre cause bii nii képp koo xamante ne bii association nga yore danañ fexe nga ñëw képp koo xamante ne bii kilifa diine nga wala ab daayira duñ bàyyi len danañ fexe ñu ñëw bokk ci liggéey bii nii léegi au fur et à ñuy dem danañ mën a dem ba chiffre ndax lii lancement bi la danañ rencontré kilifa gi waxtaan ak moom présenté ko mbooloo mi une troisième fois aussi mooy troisième phase ñu def lancement officiel bi su boobaa nag question bi bu ñëwee incha allah ci mën a tontu